ci leen jaajëfal ci topp gi ngeen di topp programme mu GMT TV tey nag ñu ngi ci seen émission bi ñu baaxoo defak ak yéen ci weer wu jot ñu koy wax yow la kan suñu émission yow la di ci xamle jaar-jaar yi mag ñi nga xam ne ñoo nekk ci jumaay tuuba di fi liggéey ci jamonoy Cheikh Mouhamadul Moustapha ba ci jamonoy Cheikh Mouhamadul Fadal ba ci jamono Cheikh Abdoul Ahad waaye itam di xamle la itam barab yu màgg yu sell yi nga xam ne nekk na ci biir jumaay Touba te ñu baree bari ci mbokki jullit yi ak mbokki talibe yu umpule ko tey nag ci barab yooyu lañu ñu dellusiwaat kon tey suñu émission yow la kan dañ koy wëlbati tudde ko fii fan la fii fan la jumaay Touba dafa am barab bu am taarix bu nekk ci biir jumaay Touba joo xam ne moog jumaa ji ñoo sotteendoo ñoo àndandoo barab boobu ñu koy wax daarul maarif al islaami di barabu jàngukaay boo xam ne bi jumaay Tuubaa noppee ci la 7 juin 1963 Cheikh Mouhamadul Fadel inauguré ko fekk na mu waajale waale woon ci biir jumaa ji barabu jàngukaay ndax ku ne xam na ne jàkka ak barabu jàngukaay ñooy ànd al madaris xabla al ba tax Cheikh Mahamadul Fadal bi bi mu ubbee jumaa ji mu bëgg barabu jàngukaay boobu nekk ci biir jumaay Touba ubbeeku ngir mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yi di fi man di taataane lenn ci seen wàllu xam-xam daarul maarif al islaami boobu lañ bëgg a ànd ak yéen def ci ab gëstu leeral leen barab bi ni mu cosaanoo ci 1963 ci jamono Cheikh Mouhamadul Fadal bi mu ubbee jumaa ji ci la gis ne barabu jàngukaay mënul ñàkk mu waxtaan ci ak kilifa gu mag alxaaji bu sa imaam nekkoon yilimaan fii ci jumaay Touba dénkoon ko barab boobu ngir mu di fi jàngale. jàngal na fi diirub ñaari weer ginnaaw bi ci la ko Cheikh Mahamadul Fadil nag sant nag mu wutal ko ndaw loo xam ne dana mën a méngoo liggéey boobu ndaw lu sawar lu mën a méngoo liggéey boobu ci la ko euh, proposé gaaral ko ku ñuy wax sëriñ alxaaji Mbàkke jaxate moom sëriñ Amsatu jaxate mu nekk ci daara ji nag di fi liggéey ànd ak mbokkam ma sëriñ daam bu sa mbar nga xam ne moom itam fi la nekk ba ni ñu ko yóbboo njaaree mu nekk imaam ci 1969 kon taarixu daara jooju muy daarul maarif al di daara joo xam ne di ci génn ci ay kàngam ci borom xam-xam ci yoonu murit kenn xamul nu mu toll ilaa waliyil muminina wa shakur kun yaa waliyu yaa qadiru yaa nasiru lil muminina innaka alhaadi albasir عزبت فورا لسوانا كل من ليس يكون مؤمنا يا ذا من عزبت فورا لسوانا كل من ليس يكون مسلما يا ذا من عزبت فورا لسوانا كل من ليس يكون محسنا يا ذا من نبعتنا بأنفع الإيمان فلتنفع الجميع بالأمان حفظتنا به وبالإسلام فلتعفذ الكل عن الملام قدمت سيد البرايا أحمدا والأنبياء ورسل يا من حمدا taarixu daara jooju lañ fas yéene ànd ak sëriñ alaaji Mbàkke jaxate mu leeral ñu daarul maarif al islaami mooy jan daara ak lan mooy cosaanam lan mooy taarixam kon ñu jàll ci biir daara ji fekk fi sëriñ alxaaji Mbàkke jaxate xudi salaata wa salaam man lam yabuda ila nabi xudi salaata wa salaam والأنبياء ورد منزل الكلام على النبي محمد والآل صل وسلم واستجب سؤالي لمن تقدم ما يسره بلا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yéen mbokk yi nga xamee noo ànd di liggéeyal Sëñ Tuubaa ci jumaa ji ak li ko wër ak lu koy yéwénal ngir nu defaru tey ak ëllëg bég na lool ci bi ngeen dikkee fii nga xamee ne ndigal ma fi bàyyi lu jóge woon ci sëriñ Fadlu Mbàkke sëriñ Fadlu Mbàkke day koo xam ne kii seetul woon ci man lenn lu dul xanaa daa bëgg bëgg maa defar rek looloo tax moo tax bëggoon na ma bëggin woo xam ne wii ci boppam day mel woon ak man àndul woon ak sagas ci man ndax bëggeel gu mu bëgg ndax bëgg maa defar loolu nag moo tax ba bi jumaa ji àggee euh, mm, léegi sëñ bu sama nijaay moom la njëkk a woo mu toog fi ñaari weer di jàngale bi mu fiy jàngale nag am benn bis sëñ lu ne ko a ah, jàngale bi day baa mi nga dox mu ne ko du dox ndax man mag laa boo bëggee mu mën a dox loo bëgg mu dox danga koy jox gone te gis naa fi gone koo xam ne kii jàng na la war a jàng man mi jàngal naa ko sax te li nga xam ne jàngal naa ko ko sax moom laa ci gën a wóolu sama bopp su ma ci amoon lenn lu muy réer moo ma koy leeral kon nag man ci sama jëmmi bopp kat maa ngi lay xamal ne ku ñuy wax Alaaji Jaxate mooy ki nga xamee ne ci boppam ma nga ca këram di jàngale alxuraan di jàngale xam-xam te yàgg na ci ndax diiru mosa bu daa ñëw ci man de jàng it bu demee fekk fekk dog nga yaa ko fekk ci kër ga di ko dégg kon nag kooku ci boppam boo bëggee mu mën a sax ma ko jox comme sëñ Bousso doome nijaay sëñ Fallu mu ne ko dangaa sob lu tax nga di ma ko wax kooku maa ko ñu ko tipp tipp gi ma ko tippoon ba saay doom sax nekk ca daaraam nga dikk di ma di ma ko jàngal ne ko waaye kon fàttali la ko mu ne waaw kon fa sa kër inna faatu sa kër daal di koy bàyyi noonu fekk xaw ma alxames la ko ko wax xaw ma ajjuma mu dikk di julli si bi muy julli si ci boppam ma toog ci sàppe si yàlla dafa dafa mel ni daf maa woo ndax sàppe su jëkk si ci laa toog mat jëw ku ñuy wax mat jëw ture tafar tafar tafar dikk te xool ma alaaji alaaji kaay wu ma dem yàlla ko yàlla yërëm ndax fallu fàttewuma ko ku la woo ci yiw moom doo ko fàtte bukk ma demee ki sëñ fallu sëñ fallu ne ma jumaa ji dëkk bi sëñ Touba daa ñaan dëkk bi muy dëkkub xam-xam yàlla may na ko ko may gam ko ko mayet ci boppam ci biir lool la nu lu nu màndargaal ci biir jumaa ji foo xamee ne fa lañ koy defee foofa noppi na nu bëgg nag yow ngay jëmmi ñaan gi loola mu jëmmi ñaan gi boo gisee ma toogee fii lu ñu ma laaj ma xam ko su ma génnee ci mbedd mi du ma xam dara kon baatinu sëñ Touba ba mu jaaroon ak sëñ Fallu loolu moo àndal loolu kon nag ginnaaw nag damaa bëgg ngay jëmi ñaan gi naka fas yéene góorgóorlu la giyal Sëñ Tuubaa ci xam-xam ci wàllu googu ci la ko Cheikh Mouhamad al Fadil woolu moom Alaaji Mbàkke Jaxate moomu ci bisub ajjuma juróom-ñeenti fan ci weeru octobre ci 1963 bi mu ko wooloo dénk ko liggéey boobu Alaaji Mbàkke Jaxate nangu ko nangu ñu sell waaye Cheikh Mouhamadul Fadil tegal ko ca ne ko charte bi ma bi ma lay sartal nag mooy nga dem tàggu ji sa way jur sëñ am sa tu jaxate ba mu jox la ci ndigal kon nag boo xamante am ñaari weer. waaye nag maa ngi lay dénk nga dem ci sa baay boo demee nga tàggu xam na ne jëfal nga gën a jàpp foofa. defe naa am na ñu fi doon laaj bu yàggatu sax tudd nañ loolu ma dem ci sëñam sotu ne ko ah, sëñ Fallou dey dama woo ma dafa bëgg ma jàngale xam-xam fii ci jumaa ji waaye nag dafa ne naa la tàggu bala maa tàmbali ronkoo ñi tàmbali sotti ko yéem naa sëñ Touba ndax sëñ Touba dafa amoon loo xamee ne moom ko féetale woon ci njàngale mi ak yu demee noonu léegi nag am na ci ay asraaram yoo xamee ne wóoruwu ci kenn ku dul man mu ne ma nga ci nekk te mënuma leen a boole kon nag léegi ci boppam li ñoroon na ko liit moom spécial la moom man maa ngi dugal tubaab yi waaye lii mooy li nga xamee ne ci boppam moo ko gën a ñor ndax amul ku ci mën a wutu lii am naa ko ma ci wutu euh, am man ma ci wutu ba walla ñaanoon ne maa ngi ñaan ci daraja yoonu sallallahu alayhi wa sallam barkab alquran yàlla may ma doom joo xamee ne ci boppam dana mën a jóge ci sa ndigg dem toog sa place boobee ma sëñ Tuubaa ji koo jox ma di ko ma di ko kii kon nag ginnaaw suñ foolu woon na ba nga dikk mun ne la ndeel jàngale foofa man ci saa ji bopp sama ñaan gama ñaanoon sëñ Tuubaa loolu laa nangu kon nag na nga dem boo demee nga la giyal sëñ Tuubaa ci xam ne ak bëggam la sëñ Fallu da la koo sant man bi dama la cee waaye bëggu sëñ Tuubaa la boo ko defee te sellal ko sëñ Tuubaa moo la yoroon bopp te it da nga tey ak ëllëg boole nañ sax tey defaree ah kon yàlla noonu yàlla gën a defar ci biir loolu nag moo tax mu mu le 5 euh, octobre la 1963 ndax ñu ngi inauguré jumaa ji 7 juin 1963 weer yooyu fa dox moo fa dox diggante boobu ci la sëñ Bousso nekkoon fii yooyu faar yooyu ma muy ajjuma ma daal di xëy daa ñëw fii ci jumaa ji di jàngale ba may dikk sax wax dëgg yàlla indaale woon naa ay téere ay euh, euh, téere gàggantiku yi mun ji dëkk xaamuus ak yooyu faan yooyu ndax damaa ragal daal ndax wax dëgg yàlla fii moom boo fi xesee toog rek te mën ay xam-xam mën na ay laaj mën laa dikk wala yow de mën te doo ko xam waaye ma toog fi juróom-ñaari weer di jàngale ji soxlawuma dictionnaire ma delloo ko ci biir loolu nag mooy li nga xamee ne moo tax ma tàmbali ni kon ci ndigalu Sëñ Fallu ak ci junjuk sëñ Bousso e, imam mooy ki nga xamee ne moo tax sëñ sëñ Fallu gën a fogoru ci sampamu fii ci biir loola it la ma koy la ma yëgal waxtaan wa dama sëñ sëñ Baaxar Bousso donc xëy naa génne léegi de sëñ Baaxar Bousso ne ma waaye gëj gaa gis sëñ Bousso Elimaana mu ne ko déedéet dugguma nga gis mu ne am an ko fonk de ndax toog naa moom ak sëñ Ousmane ak sëñ Diw ak sëñ ak sëñ Fallu moo ci boppam moo fexe ba sëñ Fallou samp la ngay jàngale foofu kon nag na la wóor ne ubbil na la bunt bi woo xam wi ci boppam waroo ko yemale kenn maa ngi gën ko jàpp bu ko defee nag kon euh, sëñ Touba ak bëggam moo di nañu xam lislaam di jaamu yàlla di ko sellal tey di topp ndigal yi te bañ a xam tere yi ba di ko def loolu moo di bëggam ci noonu loolu ca boppam moo tax ma am muurum sëñ Fallu di ma samp fii ma di fi jàngale am na loo xam ne xamul leen ko woon waa Maroc dañoo won Saaliwu Mbàkke moom sëñ Murtada mi nga xamee ne mooy directeur Asër ñu ko dañoo bëgg nga tàmmal wutal nu ci Tuubaa koo xam ne kii amurit lay doon tey faqee ndax bu ko defee nuy am lu nuy jëmee ci moom man la tànn ba muy dikk sëñ Mbàkke Abdourahman mii di samp donga moom loo am la ñëw ci kër bi naa ah, man dafa lu ma nangoon teeg naar yi ba noppi te di la ko wax ma ne lu mu doon mu wax kooku mu ne ko waaye kayit na xaalis bi daal di gaaw yu xam nga yëfin daal yëfar yëfar yooyu jox nañ ma ci lu amat cinq millions waaye nag xam naa dafa xam nga relation diggante Sénégal ak diggante Morog yu demee noonu nëx-nëx yooyee moo tax dagg nañ ko waaye dagg gañ ko dagg yi dama see neex ndax fi ñu toll nit ñi dañ may neexal di ma jox xam nga loolu nag kii man la fi dikk rek bëgg maa jox du ma ko nangu danga danga may neexal ba nga xamee xam naa yow mi sa alal war naa koo yor yooyu far yooyu mu dëkk fa noonu ko kon nag lii mooy taarix bi nga xamee ne moom moo gën a réy li tax ma toog fii sëñ Ndaam Bousso euh, euh, sëñ Abdoulahat moo sàkk woon mu ñëw fii booba mu nga mbar sëñ Abdou sëñ Abdourahman mbar moom loo mu gis ne ku bari xam-xam la te foofa njàng itteelu leen tey xa la xaritam ndax mu sëñ Abdoulahat mu mosaa jóg di dem mbar euh, di dem ñii bi ca yi bukki bar yàgge yooyu foofu lay jaar boo tax yooyu yëpp xamante naa ngay far yooyu sëñ Abdoulaye da ko sampoon fii boo ko fi sampee nu boo ko fi jàngale ñaari at kenn jaa bari ñett ci boppam sëñ sëñ Mewndu di sama mag doomu sëñ Mbakke Jaxate boo doon ilimane eh, mu amug wéradi sëñ Abdoulaye di yóbbu ko foofu boobaak léegi ba fi tool nag ku fi nekk ku mu mën a doon maanaam masala dama lay xam te it da ngay nangu ànd ak man nuy liggéeyal sëñ Tuubaa kon lii mooy li nga xamee ne boo ci amee la laneen looy laaj baax na waaye lii mooy cosaanu nag fii may jàngalee looloo tax loolu tax léeg-léeg may am ku dikk ne ma sëñ bi yaa ngi jàngale ba tamit kon da ngaa digg ma dee am murit kay buñ ko santee dara wartu wartu wartu seet eh, ay te xaaxu référé ak yooyu feeg maa ngi dund yàlla ci boppam day def may continuer yàlla da cee ànd ndax fi mu toll gone yii yëpp ñi ma jural yi ma jurul ñëpp mokkal am nañ xam-xam su ma faatu woon tey bu subaa danañ di at dikk jàngal si dama laa jëkk a wax ne la su ma toogee fii di jàngalee xam-xam yëpp day ubbiku du ma wax kenn boo dikkee téere ba bëgg a jàng laay wax rek moo xam fiq moo xam nahu moo xam arut moo xam euh, euh, bayaan moo xam lu mën a doon moo xam euh, euh, lu mën a doon mu ma toog fii daal ixtiyaare ya la yaay tànn bu la neex rek yàlla daa def jàngi woon bitim réew nag bi ma nekkee fii man di jàgg yàlla daa def ma daa wër kan ngi fu wóol fu yi fi nekkoon yëpp ba di ci jàgg sëñ bésu ilimaan moomu xam nga moom ba moom dafa daal fa noppiloo ay doomam ak yëpp da ko daal da leen daal di wédd andi ñu jàng ci man xam nga nag ke lay jàggal wu dee ay doomam indi sëñ Cheikh Sey mii moom Daaru Xudus ilimaam moo mujj a jàngal moom te joxoon na doomam ñu wax Moustapha ma dem rek dafa jàng yu mën yooyu Muxtaar Busa doomi euh, doom sëñ Masamba Kanni ak soxna Fët njàng mooy ki nga xamee ne ci boppam a jàngal xam-xam yu bees yi ndax dafa demoon jàngal butti limite ba dikk ñibbisi bi mu dikkee ci boppam kenn xamu ko te amul dara mu nekk nag fekk man seex sa yi moom yebaloon may dem di jàng ci sëñ Mahmoud Diop di ci jàng aróot mu te kooku yoroon na dayam bu ko defee nag ju sosoo foofa la ma xamee ba mu fa xamee nag benn bis mu ne ngóor si boo jàngee ma ne ko kaay dama laal sox ma dikk mu mu nattu ma seet ma lu mu wax rek ma tari ko lu ngeen gën a góor góorlu man de damay tari ba fintu la may tari de képp kuy tare daal ko ne yaay sut mi ko fi ne mu ne laa ilaaha illallaah yow fee ngay def neere du boo jógee ci kër gi daal direct ñëw ci man ma àggale téere yooyu duma ma ko leeral ay ay affaire la ma àggale téere yi dikk moom mu jàngal mu gaal gi nga xamee ne moom la jëliwoon mu tilimit moom la teg lu mu ci egg ma xam ko mu bàyyi ko lu mu ci egg sama dese koo xam mu jàngal ma ko ñaare at la ma jàngal ci Euh, xilmul asriya bi yoo xamee ne toftaloo na ñaari at yooyee ci boppam ci laa demee ba ba ñu bari defe ne damaa jàngi bitim réew waaye bu du woon looloo kaw ci lu demee noonu bitim ubbiku googee ma ubbiku it ci boppam delluwaat na ci sëñam satu ndax damaa dem jàng ba lu bari bari ma jàng ko dikk fi ne ko damaa bëggoon nga may ma may euh, ma dem ci bitim réew di jàngi yu demee noonu bind ko nag leetar def ci juróom-ñaari woy mu jàng leetar bi na ah arab yi dara na woy yi ko ko woy ma ne man mu ne lu bëgg nag ma ne ko xanaa kay mottali sa àlluwa rek sa daat yi ñu yëpp am am ko mu ne daal soob na yàlla ba toogee sax ci lii ko demoon bu dikkee ci boppam dalay ñëwee waaye doo ko yéemu te it lu ci waay xamul da nga ko mën a leeral soo bëggee nag ñu naan nga gàddu lool ñu nekk ka demoon na nga demal ma ne ko man bu ma ne bu laalati kayit du ma ko laal kayit foofee nag la ma yàlla indi muurum kooku jàngi woon moom ba dikk lam yàq ba mu yàqalaat ma ko ba tax yu bëree bëri bala maa jooy jàpp dañuy wax ne ëllëg ji xasri rek la xam te fekk man ñeenti téere laa jàng <laughs> bu des ceeg man mun naa xasa may may def talxiis yooyu yooyu bu gën a ubbi ko ndax fekk na moom daal li ñuy wax kaang fóore moom nekkoon naa ko waloole nag moo tax ma teel a yeewu barkeb sa yem surtout nag moo tax ba xam-xam yu yu sore ya ak yu jikki fi yëfi yooyu ma di ko xam bu yàggutoo am na sëtu sëñ baara bu ñëwoon ci saa kër di am lu may laaj may wax arab mu ne ni ko mag ñi dañ dégg arab ma ne man ana arab <laughs> dafa naa journaliste marocain bi fi ñëwoon daawaate yéegi ci boppam dafa mujj ne ma yow day yow xalaat ku leen daal nangam nangam am na daal ak gémmiñ gu ma xamee guñ euh, fan yooyu dara waralu ko moom yaanu euh, sëñam satu ak ndigalul sëñ Fallu ak ci sëñ Touba ci boppam ku koy liggéeyal warisu laa xeeb fa nga loolu moo tax ma mel nii kon nag man gis naa ne maa ngi tiitaroo Euh, di teele bépp sëñ Touba bu muy liggéeyloo ci xam-xam te man ci changé bopp it yàlla not ma ndax doon naa wuti lu bare bare am na lu ma wax bu yàggudul dégg ngeen ko ci sëñ Soriw dégg ngeen ko yu fi yu fi ko di ma laaj sëñ Soriw 1962 dama ko dama ko gis ne ko sëñ sëñ bi mu naa mën a ko yow yaa ngi dëkk ci taax yi kees yooyu de moom mu ne hii loo bëgg wax foofu ma ne ko ak Mbour ak Dakar yi yi dama bëgg dimbali ma ba ñu jël ma ci gouvernement bi ma mu ne ah kon ne suñu yaakaar tas moom moo ma njëkk woon woon dajal suñu yaakaar tas na nun bëggoon saa soo xamee ne kii nga sunuy doom ak ñu nu ñor ci sunuy teele beeg yëf yi nga leen jàngal di ngeen di ci lislaam ngay wutib xaalis xam nga si du wax kenn lu leer man duma ci dox du ma ci wax du ma ci jëf ci suba ca demal sa la suñu fàllu def ni kon xam nga dañ maa seqatoo hmm? sëñ Abdou Khadir moom sama digganteeg moom ngoogu rek kon nag léegi ak sëñ Soumaye bi fi at yëpp bu ko defee nag kon waa kër sëñ Touba moom ñi ma ci taseel jamono ku dul sëñ Modou Moussa sëñ Modou Moussa moom mi di mi fi jógee daa fekk ma ne ci diggum njàngum alxuraan damaa ñàkk damaa wàcce ba am ñetti weer sëñ Modou Moussa gaañu bu ko defee nag kon day mel ne kon waa Kër Sëñ Touba yi fi taxaw tey mm, kii yor ay risalaatul islamiya ñoo ñëpp maa ngi ñoom nekk benn ay ay doomam it ay sët yi ñi ci nga xamee ne eh, lii ñor na leen maa ngi ñoom nekk benn waaw kon nag noo ngi bég lool di la sant bu baax a baax ndax nit kii boo bëggee jot ci moom dangay ngay seet ka bokk ak moom ginnaaw yooyu yow yaay man maa yow ci boppam buñ la jaloxaree ci man kooku ci boppam doo ci sawar namm ci yebu ci boo ma boo ma detteelu ci asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ayca kon mbokk yi yéen a dégg leeral yu am solo yi nga xam ne sëriñ alxaaji mbàkke jaxate ñu gën koo xam ci sëriñ aas jaxate moom sëriñ amsatu jaxate mi nga xam ne moo jiitee daarul maarif al islaami bii nekk ci biir jumaay Touba moom lañu indil ci taarixu daara ji ni ko cheikh Mouhamadul Fadil sose mu ànd ak jumaa ji waaye itam ni mu ko fi daale booba ba léegi mu nekk fi di tasaare xam-xam te xam-xam yi mu fiy tasaare di ko fi jàngale muy xam-xamu lislaam bu dee ci fiq ci fiqu maliki la bu dee ci aqida aqida ashariya la ñu ñu ko sëriñ bi sante di xam-xam yu am solo ñun ñëpp ñoo ko déggandoo xanaa di dellu di ko ñaanal suñu borom gën ko fee yàggal lool te may ko wér ni ma ko waxe woon ci njëlbeen gi daar la joo xam ne buñ doon lim li fi génne ci ay kàngam ay boroomi xam-xam ci yoonu murit kenn xamul nu mu toll kon nag dañuy ñaanal alxaaji Mbàkke jaxate suñu borom gën ko fee yàggal te may ko wér ba mu gën a mën a taxawee liggéey boobu mook njabootu Cheikhul Xadim gi yépp di itam di dolli di sant ak a gërëm ak a dolli ñaanal Cheikh Mouhamadul Fadil mi nga xamante ni moo sos daara ji te mu ànd ak jumaa ji kon mbokk ñu doon seetaan GMT TV lii mooy li nga xam ne moom lañ leen indiloon ci seen émission yow la kan te tey ñu jagleeloon ko barab bu màgg bii di daarul maarif al islaami ci biir jumaay Touba kon muy fii fan la ñi ngi leen di jaajëfal di leen di daje ci suñu beneen numéro ci weer wi di ñëw incha allah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ناجيتك اليوم بحمد وشكور في المؤمنين يا ولي يا شكور يقعد لي كن فيكون حاجي منك بلا حقد ولا تحاجي نفيد إبليس لغيري أبدا في الشر ذا وكل من لم يعبدا وجه لمن قد آمنوا وأسلموا وأحسنوا مخجل من لم يسلموا كوين لأمة النبي صلى الله عليه بتديم رب جل إجابة تزادع الأعداء إلى سواهم سرمدا وداء نافع يا كريم يا مهيمن ليستجب وللذي يهيمن حفيظ أمة خير مرسلي عن الذين كفروا بالرسل قل لهم النصر العزيز عاجلا wa basiran ajilan wa ajilan qul li zawil imani ma yazidu hubbaka ya man indahu mazidu أغن ذوي الإسلام عن ركوني إلى عداك وعن سكوني على النبي والرسول المتحد صل وسلم يا مبيد من جحدوا للمنتقى والآل وصحب الكرام أوزل سلامك وجدلي بالمرام يا من له الخلق كما له الأمور يا مغنيا أغنيتني عن الضمير ناجيتك اليوم وأمس راجيا ولي قديت دون شك حاجيا أوزل لأمة النبي أحمدا مسليا عليه في من حمدا نزرا عزيزا يسمن الكبارا مع صغار لهم من بارا سن الحديث والفروع كالكتاب عن الذين امتنعوا من المتاب رافع برفع الكتاب والفروع مع الأحاديث صحاح ذا بروم أعطيتني الجميع دون سربي ولي تقود سل وقت التدبي لي أوثني الذي أريد أنفحي بي الورايا مغنيا عن مدفعي ما هو تقدر لي بالمنطقة وقد لي ما وده ذو التقى وجهت لي ما لا يزال عجبا في أبد لصالحين النجبا مدد لي مدد من لا يغفى